damay féliciter son excellence monsieur Macky Sall ndax euh, dama jàpp nañu ñun département Kaffrine ak région Kaffrine dañu am loo xam ne moom lañ gis ci moom muy que ne dafa nekk nit koo xam ne euh, li ñu soxla woon ci suñu gox mi ngi ñu ciy jàppale. Sénégal nag kenn du ko defar ci ñetti fan wala ñeenti fan mais mi ngi ciy jox ay jéego yu am solo lépp loo xam ne manqué woon nañ ko depuis 1960. ñëw na di ñu ci jàppale moom président Macky Sall te loolu moo tax ñu ànd ak moom di liggéey ak moom euh, nekkul ne poste wala poste de nomination ci biir assemblée nationale mooy tax ñu taxaw di ko xarab déedéet. parce que ñun bu fekkee def nañ loolu rek ku ko mën di def ci ñun rek defoo wàllu góor te euh, comme dama koy dama koy dama koy wax directement parce que nag góor góor rek lañ ci xam euh, loolu nga xam ne Yaya Sow def na ko rafetlu ma ko man en tant que député comme moom en tant que koo xam ne dañoo bokk région bi en tant que koo xam ne dañoo nekk comme ni ko waxee ay militant première heure te première heure bi comme ni ma koy waxee dafa war a ubbi yaatal ñi nga xam ne bokkuñ woon ñëw bokk ñi nga xam ne faruñ woon fenn ñëw bokk parce que loolu mooy doxal réew ndax nit ki bu la yàlla dimbalee nga am président bu mel ne président Macky Sall président bu reconnaissant tey su fekkoon ne ñi nga xam ne ñoo nekk ca département Kaffrine def nañ comme moom kon mu gën a ñaaw ndax moom ba ko président Macky Sall di jël di ko yóbbu waxuma la assemblée nationale mais conseil économique social environnement la nekkoon environnemental ñu mu élection législative ñëw mu ne dafa bëgg a nekk député président Macky jël ko investir ko mu nekk député ña nekk ca gox ba di liggéeyal président Macky Sall waxuñ ci ñaawluwuñ ko dañ koo rafetlu parce que dañoo jàpp ne président Macky lépp loo xam ne wax na ko wala mu def ko rek dañ ciy ànd ak moom ndax moom lañ jël sopp ko bëgg ko xalaat ne li ñu manqué ci suñu gox moom moo ñu koy defal ñu ànd ci ak moom te booba ay ay responsable lañ fa ñoo xam ne li ñuy liggéey ci parti bi li ñuy liggéey ci gox bi moom xaj xajaat ba defu ko li ñu taxawu foofu defu ko té bañ ko jëlé élire ko jël ñu élire ñu ñu ko nangul té ñun gënuñ leen suñuy nawlé lañ légui nak affaire bi li lenn rek la président Macky Sall na jël ay responsabilités ci honorable député Yaya Sow mom jëlut ay responsabilités ci honorable député Yaya Sow ñun ñu taxaw en tant que euh, responsable en tant que élu en tant que euh, patriote parce que ñun suñ gox moo ñu ñor suñu région moo ñor muy Kaffrine té dootuñ ma Yaya Sow muy jóg di taxaw di wax lu ko neex ci président de la République ndax ñun amuñ lu dul président de la république suñ gox bi liñ fi manké bari na liñ soxla bari na nam ñuy defal waaye suñu dolé ñu jël kon kooku nga xamné mom lañ yaakaar ci suñu gox muy président Macky Sall di liggéey liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib dootuñ may kenn ko xamné da ngay taxaw di jël ay yenn parole yo xamné yu manque de respect la nga di ko ci mom képp ku ko defati dinañ taxaw jamarlo ak yow ci lepp lo xamné laaj nako parce que nag président Macky Sall du n'importe qui koo xam ne da jóg di ko këlëkëlee Yaya Sow bu ñuy taxaw tey di ko faale wala ñuy wax ak moom wala nit ñi di ko teg fenn ci politique c'est grâce à à son excellence monsieur Macky Sall moom tax tey ñu reconnaître ko nit nag du la jàppale ngeen jàppalante ngeen yéen ñëpp ngeen nekk ay gor nekk ci gox seeni nawle yónni leen ñun tey ñoo war a nekk suñu mbindaanu nawle te loolu ñu suñu gox bi soxla président Macky Sall mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci département de Kaffrine ak région bi ak Sénégal yëpp nit ñi di ci teg seen bët kooku duñ ko am ba paré waron ko jital ci lepp luñu wara mëna nek mais ñu jital ko ba paré mu def li muy def ñu diko ko ñun dootuñ ko nangul kenn ñun ñi nga xamné ño nek ci département Kaffrine doon ay responsable doon ño xamné ño fi nekkoon muy ay honorable député yu nek ci gox bi ay responsable politique ak jeunesse bi kenn dootu ko mayeti Yaya saw muy taxaw di wax président Macky Sall dara lepp lo xamné ne defati na mu jëm ci président Macky Sall dinañ taxaw lijjanti ko ak mom ndax mom ño dëkk xamante nañ te yabuñu dafa fekk aduna yalla moy sédalé ku nek ak sa chance ku nek ak sa wërsëg te pour mën foofa tey boo xoolee ne euh, assemblée nationale euh, dafa rëy parce que cinq députés lañ te euh, ñun ci député yooyu kenn ku ci nekk am na groupe boo bokk. te groupe bu ci nekk ci war nga mën a bokk ci bureau bi te dañ koy séddalee noonu te ñun dañoo bokk yëf yi président Macky Sall dafa am ay nawlem yu mu àndal nekkul ne APR rek ñoo moom yëf yi. donc képp koo xam ne jot nga ci dangaa war a dañ laa war a féliciter ñi ci jotul xaar parce que dañ koy renouveler chaque année.

il faut que moom modéré wat ay langage am xam fi muy taxaw fan la parce que ñun dootuñ ko mayeti muy taxaw di adresser son excellence monsieur Macky Sall ben wax bo xamné ni nii naka sa du non la xalé nak sëñ Cheikh Tidiane si dafa waxone xalé mom moy fajj faj moromu xaleem na xoolaat bu baax fi muy taxaw xam fan la on est phase avec mom zalatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar safar